ci may déglu ex mambay bi. man nag lenn rek moom ma fi indi woon dafa am koo xam ne damaa njëkkoon a takk yàlla def ñu tàggoo am na keneen ku ma amaatoon nag ba am see moom ñaari doom waaye kooku ma wax dëgg fa yàlla gàcce nga la waaye ki ma njëkk a takk daal tudduma tur. waaye nag moom xam na man xam naa yàlla xam na fu ma seetlu fu ne wala sëriñ bu ma mën a dem ñu ne doo foo feeg dindiwoo liggéey bi ne ci yow doo mës a am jëkkër bu pexam jugoon sax mën naa di nga def yaramu neen nekk ci bedd yi taxawaal man nag damaa bëgg rek mu ba ma tout tranquille ndax yàlla def na dama doon sëy ak moom sëyatuma ak moom na ma bàyyi waaw loolu daal moo fi indi woon. d' mais xëy na dafa doyalagul ci yow rek est ce que doo jéem a dellu wala. déedéet man kay fi mu toll nii suñu diggante sëñ bi comme que dem na man dem kenn ku nekk nañ ñaanal na dina ma bàyyi tout tranquille du ma tudd nag benn tur waaye ki def xam na man xam naa yàlla xam na damaa bëggoon nag ku ma ci jàppale te yàlla rek tax ndax taaru jigéen mooy sëy suñu kër téeméeri goor ak fuk ak ñett ñew nañ fa ño xamné si boromi daraja ja ñuma ño xam duma leen sax tut tay mu leen tudon ci réew mi man naan man nañ ma yor sama girdun waye ku ñew wax dem ku ñew wax dem mënu maa ba li ne ci man dañ ma bëggon nak sëriñ bu ma dégg wutuma social bu may fayé man naa ko fayal sama bop man sëriñ bu ma dégg na ma ñaanal rek ba li ne ci man dafa mel dañ ma tak li ne ci man rek na na dañ ba sel wécc ba yalla may ma jëkër aduna man jox waaw da nga bëgg ko la jappalé kuma jappalé da la bëgg ta yalla rek tax Ah. mais ndax bi nga jógee ci moom ak léegi am nga ci maanaam ci ñaat nit yow nga sëy boobaak léegi. sëy naa benn euh, sëy naa fi benn sëy waaye fu ma sëy sëy dem tamit dañ ne boo demee tamit da nga fay jógewaat ndax li lay ñaanloo baat sax doo ko xam ndax daf lay xabtal eh, lii nag def maa duj nag tey mënumaa fexe ba góor gu ñëw daw di si dara tak ku ñëw rek dangay wax rek daal dem. ku ñëw da ngay wax rek dem am pagaay am pa gaay ño xamne si boromi tour lañu. wurna na dañuy ñew bëgg ci ma waye ku ñew rek wax dem legi sax far yalla ku ni ma sa kër sa dama nan ko doyna na dama xamne lay jaar fe moy la awon fe moy awal fu rek. duñ duñ duñ ma sa ñew ci aduna kon da nga bëgg da ko ci jappal waaw ku ma ci jappal rek ta yalla tax. waaw lu ma ci waaye laaj bam ma ba li nekk ci man dañ lu ci laaj rek dina ko joxe carte nu yalla ndax li fay ci serigne mo ëpp lolu voilà mais est ce que kooku yow mës ngaa dem ci moom ne ko tamit euh, wax ko dëgg gi ne ko ñu bari ñu ngi may wax ni yow laa fi mel noonu ngir moom bu fekkee moo def mu mu mën ko dindi. demuma fa ndax boo naree dem sëriñ si lay wala ñi lay waxal dañ la kan mën ngaa dem mu làbbaliwaat da ngay def li ngay def rek te pat looloo tax waaye moom mi def xam man xam naa yàlla hmm. waaw ku dimbali daal laa bëgg te yàlla rek tax ndax taaru jigéen mooy sëy hmm. mel lu la neex te amul sens waaw. bu ma neexee nii ma mel nii mën naa cee continuer ndaxte macha allah maa ngi am lu ma war a am waaye gënalu ma sëy nekk sama biir néegu sëy moo ma gënal lu ma mën a. waaw incha allah incha allah. ok jërëjëf baax na.